waa di daal man jàmm ak salaam kase kase kase kase laa gis ci état d'urgence bi parce que coronavirus bi moom andi na njàqare ci dëkk bi yëpp yëpp rawatina fii ci Sénégal mais na xam naa moom am na jéeg joo xamante ne yi mel ni man dinañ kontaan parce que seen jëkkër yi nga xamante ne buñ wàccoon ñëw fii di lay fee laa jaaroon ak fii laa jaar loolu moo amatul fi mu nekk nii kay vingt heures pile ci biir kër yi jéeg ju baax ji mën a ràcc ak seen i jëkkër waaye sama nijaay moom lii ak ma ko yéene waaye gis nga tey bu ñibbisee man lay fekk ci kër gi dinaa ko gaaral ba xam ne moom lay waxal ndax sama nijaay moom xam naa ne léegi moom ñi ko gis nag duur rek la ragal waaye xam naa moom moom ñi ko du respecte du ci bokk bu ko munee ma mun koo kidnappé rek di ko daggate pendant. waaye yow soxna Aram yow looy wax nii maa nga toll sa koñu kër gi dégg la ngay wax rek mbararar mbararar mbararar wàññil sa wax ji fi mu toll nit ñi fuñ dee lañ tal waaye du ay wax. dëkk bii billaay réew mi ay ay ay ay li lii yàlla na fi gaaw jógee jàmm di ñuy jooy joomu jàngoro far nag léegi ñu fat la nag ginaar lii neel patt man neel tàcc nag nga war a def nijaay deuxième prison nga nekk xamal ne nag deuxième prison nga nekk nijaay dinaa la maltraité ba nga xam ne maltraitable gis nga loo doon def ci fan yi passé di tardé tërësi dugg si dinaa ko fay ci couvre-feu bi nga xam ne nag xolal dimbala ma ngir yàlla rek bul delloo avance te yow sax nijaay yow moom xar mi rek nga bàyyi buum bi xanaa dangaa bokk ci borom kër yi taxawaalu ah xam naa daal moom couvre-feu bi daal moom ah yalla bu mu fi jógee même li coronavirus bu demee sax dañoo war a continuer couvre-feu bi de xanaa xamoo lay laxa illallah ah man moo tax maa wóolu woykat yi gis nga woykatu Sénégal yi mun nañoo woy lu xew ba pare mais mun na ñëw loo xam ne ñëwagut man maa gëm ñii ñoo mën a bind ay taxiwaay am na woykat bu daan naan ah man daa xaar noonu la ko doon waxeeti waaye man mu xoolal damay modifier woyam bi moom naan sama nijaay dootul guddeetee i eh waay sama nijaay dootul guddeetee i eh waay aram day <laughs> nee na man lay gaaral yoo waaye di nga xam ne ni magum ngéwél nga fiy fekk <laughs> yow aram fay taxoo may teel a ñëw lif ya ba duma guddee yar lu mu bëgg lu ne am ko de ah sama nijaay de mujj naa toog waaye nag de borom kër goo xamante ne bañ a toog sa kër ba tey ay liif moo tax nga toog sa kër ba te borom kër gu ñu dab di ñand tam man maa la bañ nijaay yow nijaay yaa softi sikk yow ñàkk fayda bay bëgg a dee yow boo demee bañ naan la boo vingt boo génn nga toog te chaque jour ñu naan la toogal mënu toog waaye tey da di nga toog fu mu nijaay toog bi force la nijaay Arame Faye du ma sa morom de du ma sa morom laa la wax ni du ma sa morom police yi am na ñuy liif waaye man ni denc naa sama liif bu baax waaw boo nag sa kaw laa jëm si léegi na wax ji doy nijaay dama ne nga noppi gis na ci état d'urgence bi ak couvre-feu bi yéen góor ñi noppi leen ñun jigéen ñi ñoo appauvant ah. dama ne nijaay nga ne tàcc te noppi yow amoo loo wax dangaa toogal ak lii fii rek xanaa toog